auzu billahi mina seytaani rajim yi bisimilahi rahmaani rahim sant yàlla julli ci sanguf sang yi Seydina Mohamed sant suñ ñaari waajur sant suñ wasila Cheikhul Khadim di leen nuyu bu baax di leen ziyaare yéen ñi nga xam ne yéen a baaxoo saasu su ne di toog ci Waarwi TV jiite ci nuyoo bi nag sunu kilifa Serigne Mountakha Bachir yàlla ko fi yàlla lool te wéral li cëram di nuyu di ziyaare seen Cheikh Jëmbu Fall yàlla na fi yàlla yàggal lool Fall téwéri li ci ram di nuyu mboolem kilifa diine a kilifa aada gu nekk ci département bi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax lu nuyu askan yi nga xam ne saa su ne dañuy rafetlu jotaay yi ni am fii ci Waarwi TV askan yi nga xam ne yéen yéen ñu tax a toog fii te di leen di neex ci la ñuy dox kon saa suñ xëyee rek danañ góorgóor ba li leen di neex ngeen di ko gis ci ñun incha allah tey ji nag di le 28 décembre 28 décembre buñ ko waxee ku xëy suba sa yaram dafay diis ku xëy suba sa xool dafay tooy ci bis bi nga xam ne Cheikh Salim Mbacke ci la ñibbi woon àjjana muy le 28 décembre 2007 ci Touba nekk bis boo xam ne bis bu tiis la guddi googu kenn du ko fàtte ci àdduna fu waaye man di nekk ci àdduna ndax boobu garab yi nit ñi lépp loo xam ne rek yoon nga bakkan yëg nga jóge Serigne Saliou bi fi jóge ñibbi àjjana ndax dañ koo miinoon lool mu nekkoon kenn koo xam ne defar ndaw yi defar na maam defal baay defal doom muy koo xam ne liggéeyloo na ku ne ndax Cheikh Saliou Mbacké moo fi liggéeyloo Xelkom mboolem fu doomu aadama nekk ci àdduna teew nga ci xel Xelkom googee liggéeyloo ndax leen naan jox ma ndaw ñi ma def ci Serigne Saliou jël ndaw ñi def ci loo xam ne nii macha allah ndax ñun ah, Serigne Saliou dañ koo xam dañ koo miin dañ koo tàmm ndax ki nga xam miin ko tàmm ko saa soo toogee rek ba at ma dil si naam sax Serigne Saliou du jóg mukk si ci waaye saabu saa bu 28 décembre dikkee voyage bi ñun ñëpp ku ci nekk rek da sa xool dafay dëgër sa xool dafay tooy mboolem dongoy Serigne Saliou yi mboolem ko jamono woon te Serigne Saliou ak yaa xam jullit nga yaa xam beneen fi nga bokk ndaxte Serigne Saliou daan liggéeyloo ñoo xam ne duñ jullit Serigne Saliou liggéeyloo na murit liggéeyloo na tijaan liggéeyloo na mboolem rek tarixa bu fi nekk Serigne Saliou liggéeyloo na la liggéeyloo na ku ne ba waral nag tey jii di bis bu metti ci ñun te bis bu tiis juñ du fukki fa at ak ñett fukki at ak ñett ñu lay jooy te duñ la fàtte mukk te saa suñ yeewoo suba di la gën a bëgg di gën a am ceew cofeel te njàngale mi nga xam ne bàyyee woon nga ñu ko mu ñuy gunge di ñu defar ndax mbàkke yaa ñu defar Cheikh Salim Mbàkke mi ngi gënee àdduna 1915 ci njaareem ci dëkk bu sell boobu ci dëkk boobu nga xam ne moom la Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul nekkoon mujj nekk ci jamono ba ni ñibbee àjjana foofu la Cheikh Salim Mbàkke gënee àdduna Cheikh Salim Mbàkke mi ngi génne àdduna ci dëkk bu sell bi nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul yàlla da koo fayee dëkkam bu sell bii Cheikh Saliou Mbacké nelewe fii ñibbee àjjana 1907 1900 2007 ñibbee àjjana kon nag mu nekk bis boo xam ne bis bu triste la génnoon na nag ci askan wi ndax 28 décembre bu jotee askanu tubaa gépp ku ku waxul ku ci nekk da ko romb mu toog sa ngéem ku ci nekk da ko romb mu jël kurusam di ñaan ñii di cant ndax yàlla kat li ko neex moo fi def ndax ñun ñëpp dañoo jàppoon na ku ci tedd kooku du fi jóge waaye ki fi jël Seydina Mouhamed jële fi Seexul Xaddim kon bu jëlee Sëriñ Saaliw day métti loolu waaye duñ ko fàtte mu ko Mbàkke ñu génnoon duggoon ak yéen fii ci mbaari Madiyana yi leen sunu mbokk yi fi nekk naka la ni xalaata Sëriñ Saaliw ak bis bi jotee naka la ñuy def ñu dem ci rési ba ànd fa ak Sëriñ Basiiru ci caméra bi nag maa fa àndoon ak Sane. nga may laaj koo xam ne ku neex wax la di ku naqaree wax. waaye Serigne Saliou yàlla sunu borom moo am lu mu ko defaloon euh, loolu yomb naa xam xoolal gone yi jamonoonte ak moom lenn ci mag ñu jëmaneewu jëmanoonte wut ak moom gone yee leen gën loolu rek doy na ñu wax la ci sëñ Saliou ne nit ku baax la yàlla sunu borom moo ko faye loolu ci jaan yi nun ñii nun li ñuy wax rek mooy noo ngi koy ñaanal tey ñaan ci moom la mu daan wax moo waxoon ne na ngeen ma jox gone yi ma def ci moom ñoom li sëñ bi defoon ci mag ñi loolu kenn ku ne xam ne ko doo gis mukk gone goo xam ne sii tey jii dana woote dam ya fi barab wala mu woote xobu kart fi barab ab daayira ak cant diw rek gépp gone gu mu doon ci dëkk bi waxuma sax gone yi mais même jigéen ñi sax loolu la yàlla dogal ci ñoom sëñ saaliwu loolu la ko yàlla defal noo ngi koy ñaana yàlla na ko yàlla bu may mu metti ma lool waaye mu neex ma lool mu métti ma lool mooy nit su tàmmee lu neex te am njariñ ci moom bu ko ñàkkee mu metti mu neex ma lool sunu borom mi ko fi andi woon moo nu ko xañaat tey tamit famille bi mu bokk defe naa moo ci gën a gudd fan wala boo nee diwa ko ci gën a gudd fan moom nga ciy teg kon loola bu la mittee day tourné neex la nun ñëpp la metti man fekkuma fi mu ma fekk ci àll bi waaye lu ma tiis la man ak mboolem ku ma nekkaloon ci àll bi waaye lu nu neex la ndax sunu borom a jëf te noonu la daan jëfee ba agsi ci moom jëfewaat ko kon loolu duñ man lu neex man nag wax dëgg yàlla dafa taxul ma mën a wax tey it da nga maa bett waaye nag kaay sant moom ci ko jara ci koo xamante ne defal nañ loolu jar nga sant loo wax lu dul alhamdulilahi rabil alamina da ngay manqué wax ci sëñ Saliou moom jafe na lool waaye yomb na lool baax na jërëjëf soxna si. xanaa di siyaare rek Cheikh Saliou Mbacke xam ne xol yi du ko fàtte di siyaare njabootam gi fi bàyyi ci sëñ Cheikh Mbacke ne ca bopp ba ah <coughs> Cheikh Saliou Mbacké kooku moo noon nañ ma jox gone yi ma def la sëñ Tuubaa defan ci mag ñi ma def ko ci gone yi ca it wane na ko ah, ndax li mu fi def yaatu na lool ku dem xel koom rek doy na sëkk maanaam mandarga kon Cheikh Saliou mbake daal li ci mën a wax bari na lool waaw xanaa di ñaan njabootam gi yàgg fi rek ca wér a ah, talibe yi itam yàpp naa ni moom ñëpp ko bëgg nag moom ndax loolu rek mooy li nga xamee ni si maanaam mooy li am solo bëgg sëñ Saliou rek bëgg ko rek waaw waaw loolu moom maanaam ba mu ñu bàjji na ñëpp ñëpp ku ko yëg rek yëg nga dara ci seeram ndax man ci guddi gi falaas daal di ba ma ko rek falaa daal di jógee dem ba fa koy dencee mënumaa àgg waaye maa nga fa buntu jumaay ja taxaw kon kooku ci yëg lépp lépp mu su ko wax bari na lool waaw noo ngi nuyu di siyaare ñëpp ah, di ñaan nag Ah, yéen waa rajo bi ah, Waarwi TV kon noo ngi koy noo ngi leen noo noo ngi koy ñaanal rek yàlla bàyyi ko fi jëmee ko kanam a ah, ba li mu yéene ci rajoom bi lépp yàlla jox ko ko waaw ko yàlla suturaal yëkkati ko ca kaw ni jumaa ji yëkkati ko rek na ni Waarwi TV yëkkati ko waaw jërë ngeen jëf sant nan bu baax na mbooloo mi yëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla bàyyi leen fi mbas mi itam noo ngi ñaan yàlla jëlee ko fi ah ca wéral ñëpp bu ca lenn lu ni mel bañati fee ñëw jërë ngeen jëf sant nan bu baax a baax ah Cheikh Massamba Diop Sam yàlla na fi yàgg ci wér ah, man kat mooy sa moo mooy saa bunt ci Serigne Touba waaw kon lu duma wax mukk ci tudduma ko jërë ngeen jëf. ah nu yàgg a jëfe ay eh, ndigalam di mooy tandu ay tereem wax dëgg yàlla nun baax. la noonu daal mën noo wax sax mbiram lépp na ci ay baax ay def-def ay lëf noo ngi ci daal di fas yéene daal wéy ci ay diglam bàyyi ay tereem ci barke sañ jamonoom kay moom amul woon moroom moom moom kay nag wax dëgg yàlla ah sañ Saliou daal amul moroom noonu na kay waaw ah, noonu noonu kay màggalal nag noonu ñii fas yéene luñ ci man ci mm, ay berne ak yëf dinañ ko def. ci barke am a ah, mm, sunu yaram yëpp nag yëg na ko yëgu tumuraanke lool yëgu naqar wax dëgg yàlla daal yëg nañu daal mbiram daal ah yàlla yàlla yàlla dolli leeram tan sunu borom teg na si yoonu jub barkab sëñ bi waaw. waaw ah, jërëjëf. aouzu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk jullit taal bi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di amaat mbégte ak contentement bu baax a baax di santaat suñu borom subhanahu wa taala waaye di amaat mbégte bu baax a baax ci jëmu ji sali ji ngeen ñuy laaj muy Cheikh Saliou Mbacké Cheikh Saliou Mbacké nag sawar nañ lool wax ci sawar nañ lool ah, am ci maanaam lu mel ni jotaay ñu dëpp ñu micro ñu ciy wax. ndax day am yëg-yëg bu rëy rëy boo nga xam ne si ni ñun boo tuddee Serigne Saliou rek day am lu ñuy yokk donte ni nag ndaw lañ eh, liñ dund ak Serigne Saliou bëriwul lool waaye eh, teewul ñu doon topp eh, doon xencu ay jaar-jaaram ak ay kéemtaan yu bëri yi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala def na ko ci moom ba noppi kéemtaan yooyu mu feeñal ko ci ndaw ñi ndax ndaw loo ubbi fi mu toll nii xolam Serigne Saliou nga cay fekk mu fees dell Serigne Saliou day jantug jamono. waaye Serigne Saliou de Serigne Saliou moo nga xam ne si ni suñ borom subhanahu wa taala dakaa parawaaloon ngir ndaw ñi muy denc ku tedd di Seexuna Ahmadul Xadim boo nga xam ne dakaa dencoon ngir ndaw ñi ndax it dafa doon xaar loolu ñu naan lu jot lu nekk yomb waaye Serigne Saliou dafa nekkoon dencub suñ borom dafa nekkoon lu Seexuna Ahmadul Xadim waajaloon ngir lan ngir ndaw ndaw ñi ak fi jamono toll ndax it doy na ci rek muy feeñ jamonoom kéemtaan yu rëy rëy da cee feeñ muy bi nga xam ne si ni feeñ na jamono Seexuna Ahmadul Xadim war kaa jox tur muy ak saaliha di tur wu sell màgg woo nga xam ne si ni képp bépp doomu aadama boo nga xam ne si ni bëgg ngaa àgg ci borom subhanahu wa taala waaye bëgg ngaa am ci al amalu saaliha mooy jëf yu yi ci turu Serigne Saalihu Mbàkke nga koy jaarale moo tax keroog ba see Seexna Ahmadul Xadim di jox tur wi di ko jaarale ca taalibeem bu sell ba taalibeem bu màgg ba di Seex Muhammadul Amin Diop Dagana Cheikh Mouhamadul Amin Diop daa dagana daa xam tolluwaayu Serigne Saliou ak Serigne Saliou fi mu toll ak niñ ko waajalee ak ni Cheikhul Khadim doon waajale Serigne Saliou ak tur wi ba taxoon mu tënk ay mbayit du ko ca feeñal ak mbégteem ak ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu def Serigne Saliou mi muy jantub janam waaye mu def Serigne Saliou ba bépp jaam waaye bépp doomu aadama euh, boo nga xam si ni nar ngaa mucc waaye nar ngaa am shahadatu daaray ni dana ko jaarale ci jëmm ji sell ju màgg ji di a Cheikh Salih Mbacke. ba mu génnee àddina waaw waaw waaw nañ ko bu baax a baax. mu nekk nag ba mu liggéey àjjana mu nekk guddi gu rëy rëy guddi gu tiis guddi gu ñu xam si ni am nañ yëg-yëg bu rëy rëy boo nga xam si ni donte ni tout tànk lañ mais jamono ji ne saa su ne suñ xel demee ci Serigne Saliou rek day am beneen yëg-yëg ak mititu xol ak ngaañ-ngaañun xol loo nga xam ne dañ koy yëg ndax it Serigne Saliou mën naa ni doomi Serigne Touba yi moom moo ci desoon moo nekk xaamisul xulafa waaye ñun moom lañ jamontelool ci saaxir ndax it bu ma nee man doomi e, Serigne Touba yëpp moom Serigne Saliou moom rek laa ci mës a jox loxo moom rek moom laa ci mës a siyaar mu jël loxoom bu sell bu teg ko ci sama bopp bi ñaanal ma loolu duma ko fàtte mukk ci loolu du hasard am na lu ñu def ci ñun kon jamono ji ne saa su ne duñ koy fàtte ci ay ñaan waaye bis ba mu demoon moom tiisoon na ci ñun lool lool lool saa yu ci seen xel demee rek day am na leen lu ñuy yëg Abdoul Ahad